ñu leen di ñaan rek ngeen aimé page bi ngeen aimé chaîne bii di Alxaïb TV yéen ñi nga xam ne abonné gu leen ni ngeen abone bés cloche notification bi nga xam ne bépp waxtaan mu ñu defatee incha allah di ngeen ci jot yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biir ñu ngi leen di ñaan bu ñu àggalee ngeen amee partagé yal na yàlla defal ñëpp jàmm bu jaayee sayyidina Muhammad sallallahu ñu fas yéene àggale waxtaan bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko muy tegginu taalibe ci sëriñam fi mbinduk Mawlaana Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu sunu mbindu bi passé ñu ngi yemoon ci fi Mawlaana Cheikh El Hadji Malick di waxee bi taqdimuhu li xayrihi xadi taxam waaye lu jiitu loolu dafa ni muawilan fi qawlihi liman baham taqdimuhu li xayrihi qad iltaham waaw mooy wax naan na nga firi yow taalibe bi na nga firi waxu sëriñ bi ci li nga xam ne dafa nëbbu gannaaw mu waxtaanee ba pare mu teg ci ne taqdimuhu jiital sa sëriñ li xayrihi ñeel ku dul moom qad iltaham dafa war foofu lañ yemoon kon ñu fas yéene ko àggale insha allah aoudu billah min ashaitan irajim bismillahi arrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñi ngi dellu santaat borom subhanahu wa taala da julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabam ak ñoñam di ñaanal sunu wasila Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani yal na yàlla yokk leeram te taas na ci barkeem ak sunu jokkuwaay di Mawlana Cheikh Sidi Hadj Malick ak njabootam yépp ñu fas yéene àggale incha allah ci mbindug Mawlana Cheikh Sidi Hadj Malick bunt bi muy jàngale tegginu taalibe ci sëriñam ci téereem bii di jaamiul maram wala fatihatu tullaab ci alxaaji maalik radiallahu anhu ba léegi mu ñuy jàngal teggin yi ndax ci teggin ci la taalibe di defaroo bu faw ndax borom bi subhanahu wa moom moo jox pouvoir ay nitam mooy ay wàllu yoom ba tax ku laal wàllu yoom rek sunu borom ngay attaqué yàlla ci àll waaw kon mu ñoom wàllu wi seen lépp ñu jël ko jox ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp waaw loolu waral képp ku ñàkkal teggin wàllu yu yàlla rek mi ngi mel ne yàlla nga ñàkkal teggin te ku ñàkkal teggin yàlla yàlla ku ko ñàkkal ku ko ko ñàkkal teggin rek képp koo xam ne amoo teggin ci yàlla doo am ngërëm looy sàkku ci moom doo ko am yann ci yàlla bu waral sa diggante wàll yu bële yàlla boole muy sa sëriñ boo amulee teggin boo ko ñàkkalee teggin nag doo am ngërëm te boo amulee ngërëmam doo àgg ci yàlla yàlla na ci yàlla musal ñu ni salxaaji maali teggin yooyu yan la ak yan mu ni laa yaltaji li gayrihi laa yaqudu walcheyqu waaqifun ala mactamadu laa yanbagi qadratahu lmanaamu illa ida qad adina alimaamu waaw mu ni laa yaltaji nee na bu mu wéeru moom taalibe bi bu mu wéeru li yi ci keneen ku dul moom ku dul sëriñam nee na booy wéeru wéerul rekk ci sa sëriñ bul wéeru ci keneen ndax moom la la yàlla booleel moom mooy sa kilifa kon booy wéeru booy ut wéeruwaay ci kilifa yi na la sa sëriñ doy wéeruwaay moo tax mu ñu laa yàlla tajib bu wéeru moom taaliba bi li xayrihi ñeel keneen ku dul sëriñam dégg kon na la doy rek wéeruwaay mu tegaat ci ni léeg-léeg mu ni su fekkee dafa am foo xam ni dem nga fa nga ànd ak sa sëriñ walla yow sa sëriñ dem ci benn bërëb fekk la fa nga toog yow taalibeem yow nga ñëw fekk yaa ngi toog waaye sëriñ bi ñëw fekk la fa te sëriñ bi amul fu mu toog Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu nee na bokkul ci teggin yow taalibe bi ngay toog sa sëriñ di taxaw kon lan lañ war a def mu ni Cheikh El Hadji Malick nee na bokk na ci teggin nga jug yow taalibe bi bàyyi sa sëriñ mu toog waaye bul toog mukk fekk sa sëriñ mu ngi taxaw moo tax mu ni laa yaqudu wa sheyqu waaqifun ala matamadu nee na laa yaqudu bu mu toog moom taalibi bi te wa sheyqu waaqifun mi ngi taxaw ala matamadu bokk na ci lu ñu sukkandiku c'est très important waaw ndax danga koy dooloo ci lépp bàyyil mu nekk sa kilifa rek sa waajur sax daganul ngay ngay toog moom muy taxaw te amul fu mu toog kon jugal nga bàyyi ko mu toog loolu mooy teggin dégg nga mu tegaat ci ni laa yanbaxi xadratahu lmanaamu illa ida xad azina al imaamu lii lañ ñu mbëri dañ koy def te xamuñu ko mooy lan mooy naam toogaayu sëriñ bi jotaayu sëriñ bi ngay nelaw ci wet bi sëriñ bi di waxtaan ngay nelaw day mel ni comme si yow li muy wax intéressé wu la yow daal say nelaw moo la ëpp solo bokkul ci teggin waaye à moins que à moom sëriñ bi mu digal la nga nelaw bu boobaa nelaw dagan na ci yow loolu mooy lan mooy looy def rek nañ ci am ndigalam waaye bul nelaw mukk fekk sëriñ bi mi ngi waxtaan loolu Cheikh Alhaaj maa di wax fii ma tax mu ñu laa yan baax yi jaaduwul almanaamu nelaw xadratahu jotaayu sëriñ bi jaaduwul ci taalibe bi jaaduwul ci taalibe bi sëriñ bi di toog jotaayam nga nekk ci wet di nelaw bokkul ci teggin te tax mu ñu laa yan baax jaaduwul almanaamu nelaw moom taalibe bi muy nelaw xadratahu jotaayu sëriñ bi toogaayu sëriñ bi mu ni illaa lu dul xad asnal imaamu lu dul ne njiit la lu dul ne sëriñ ba moo la digal ci nelaw yooyu mooy ne la moo la xool xam ne da ngaa gëmmintu mun la diw dama tëddi wala mi ngi waxtaan mu xool la xam na ni yaa ngi dojjant mun la dama nga tëddi kon boobaa tëdd boobu ngay tëdd doo ci am benn daan waaw yaa ngi ko tax yaa ngi ko defee ci ci ndigalam waaw moo tax mu ni laa yanbagi xadratahu lmanaamu illa ida xadinal illa ida xad azinal imaam waaw lu dul ni sëriñ bi moo digal ngay nelaw kon ñu ko fii ci point yu am solo bi ñaan yàlla yal na yàlla may ñu beneen jotaay ñu ngi leen di ziar bu baax di leen wax ni abonné leen rek incha allah dinañ koy continuer ñun ñëpp ñu jëriñoo ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.